ayca Pa Moussa bu Bargny wala Sabor mbër nuyu naa la. waaw Sabor bu Bargny wala Pa Moussa loo si wax rek. boobu naka wala bu jàmm. waaw naa la fay la. Pa Moussa gëjoon na laa gis àll bi lu xew. nga dama toogoon rek xam nga koor gi. Ah. ñu ngi say ma waajaloon nag sama benn xarit doon jabar. waaw ah. moo tax ñu ngi si lendemain koor gi. Ah. mais xam nga ñun bëre mooy suñu bis bu ñu bés rek. waaw ngi final xam nga ki ngay final waaw xam naa ko bu baax mbalka bu yaayam waaw mbalka bu yaayam bëri nañu ay yoon a jega doole comme ni séeréer yi di wax non yow naa doole ah. kenn jaaxaluma fii noo gisee final bi di ñaan yàlla yàlla ma ndam rek ah. waaw man guddi guddi bari ah. waaw tout droit bari mais lambu sumbel bi noo gisee lambu ji waaw lambu sumbel nee ñu final final nañ fi daaw di géej ñëw final woo fi dañuy sant yàlla lamba yi di continuer di gën a réussir. daal li mooy lamb. fair play la. xam nga ku da wut sa woon mais yàlla man la suturaal may mbal ko yaayam. ñu dem final di ñaan yàlla yàlla may ma ndam. waaw nag kenn mënul kenn ñun ñëpp ñoo bokk bokk lu ñu bëgg mais yàlla mooy séddale amaana moo doon Mame Balla Gaye am ne final amaana ñaan yàlla yàlla may final di encouragé ñi daan ñëpp waaw non non waa Bargny supporter yi. waaw ñoo Bargny wala yéen guddi guddi Bargny ñun amuñu lu dul Bargny. ñun Bargny rek moo ñor. fu ñu mën di dem tey Bargny. waaw di bëgg wala waa Diofior sama gars yi ma àndal. di bëgg sama mafia bi mafia support bi. waaw ñoom sama gars yi ñu war a ko ñuul gi gars yi bàyyi ma kenn maa ngi bëgg ñëpp ñëpp ñëpp waaw waa Bargny di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal ñu ñaanal seen doom mu andi ndam incha allah di leen bëggal di leen ñaanal dem yéen ñi ne yéen ay sur internet yi di leen ñaanal suñu site yi dem ba nekk ay télé kon loolu leen ñaan daal lamb fu mu toll rek yéen la waaw ñu leen di bëggal bu baax jaajëf mbër jaajëf lamb tout droit aca mbalka a yaayem mbir i siyaare am Lamine delloo ziar bo na wañaaja a ñaa ndik rek malka yaayim en final kum xum yëg-yëg jego kontaan rek mbir kontaan rek mais mbalka xay ka yo'naa de kuma yoontiidu confiance wala a tegtale tegtal retijang jom na waaw kaaga rek koy ah. a cang jom rek Pa Moussa Bargny i anda numa paax nu mosa maaf aha i maaf ra cafa ɗak pondum pondum o oh. ten na maafa xa maca a ɗak kay ku fas yéene jàng revanche ka ah jàng revanche ay ah nenam geta njom na njom ne afela de asa o podum de soko badit final ah anima anim sax lamin ah. billahi det loyim e kaga sa ana me cerke sumu rek ah ay legi no ma afrique final ban njom rek ah. njom rek lamin parce que wo anda xama njom anda xama quoi yi mhm. naga saxtu mm. billahi legi mbal nga kuma lay ka wa yaayem supporter ke na am big ana def un peu partout na monde fo bege aden rek mu den def na billahi jegim dabit den quoi ñana den rek dan doga ci den jam Aha yi. Acha mbir na que le meilleur gagne. Aha merci waay. Tout droit. OK. Tout droit. amin wa junay alele final eh Babou Sa Bargny Mbalka